waaw waaw financement yi ñu ngi bëri ci dëkk bi xale yi ñu ngi am seen financement de xam na xaw ma nag naka lay demee man xaw ma naka laay def nag ba am ci financement bi nag wax dëgg fa yàlla kon donc di kontaan ci yow lu bëri euh, ci li nga xamante ne li nga waxtaane fii ndaxte c'est très important bu ñuy waxtaane ci wàllu football bu ñu gisee ñi nga xamante ne ñoo fi nekkal wàllu football bu ñu leen woowee nañ wuy si fii ñoom yoro si ñoom bambay ñoom salu rek ñoo fi nekk ak ñoom club loolu di ragal man loolu moom ma jaaxal quoi des fois da dem ba ci nit ki nga ne ko da nga koy invité nga dëgg mu naan la non man ñëwuma écran wala ñëwuma patati patata te ñeme nga téye xaalis guddi yi man si opposé dafa dafa grave ba pare ba nga xamante ne mooy loolu ak loolu sama ko min kaptata o yakam no ƴettu crédit ma nodda mbiɓe sano min wa noddude sa haalni neɗɗo kay neɗɗo haalni jomum kay ko hettiyankarin mais nodda nodda ha tampa ba pare nga jël sa moto def ci essence fekk si euh, ki a invité nga gis mu lay tontu naan non man ñemuma caméra ñemuma lii ak lii ak laa yi dul kenn comprendre fii lépp lu ñuy wax ci wàllu projet hôpital bii ñun suñu micro rek la ñu yor ñii ay consultant la ñu dañuy wax seen xalaat kese kon donc yéen a mën a ñëw ngeen fekk suñu fii man su fekkente na tey ñu nekk extérieur comme Abdoul nu mu ko waxee Abdoul si moom dafa ne sax dafa voyagé mais sinon moom ci boppam dina ñëw ba ci biir studio bi ñu jàkkaarloog moom mu expliquer ñu affaire yi tamit tu vois. xam naa fii balaa jeudi incha allah nee dafa am lu ñuy xaar loolu bu demee ba egsi dina ñëw woo téléphone moom ci boppam dina woote ci émission bi pour mu expliquer gars yi xaalis bi naka lay demee ak fu muy duggee waaw loolu moo am solo sinon bu ñu nëbbatoo foofu rek mineen mineen jot na mineen kaala waaye benn bàyyi na ko politique ko politique te ñu loolu lañ bañ. affaire yi euh, du affaire politique hôpital bi c'est départemental ñëpp ci def seen xaalis ñu defar ko mu nice kon donc lii nii sax bàyyi comme ni ma ko waxee même su fekkee ne sax. Goudiry beneen politicien dafay jóge fële pour defar Goudiry opital wala pour defar Goudiry stade na ko defar buñ ci buñ ci xalaat dara mais na ko defar parce que ñun loolu lañ bëgg. je ne peux pas concevoir que nga naan non Goudiry dara amul mais benn politicien bu jógee fële bëgg defar Goudiry nga naan ko non kii politique lay def moo boobu lañu war a bàyyi ñu teg ko sandi ko ne échange comprendre léegi buñ ci jógee euh, Yoro dama lay poser question rek ci wàllu li nga xamante ne mooy emploi des jeunes gis nañu le président de la république euh, son excellence Macky Sall gën a wax ci télé gis nañu tey jii nii am na somme bu bëri bu ñu distribué tey jii nii ci niveau euh, ci au niveau national cest à Sénégal yëpp xaalis bu bëri mais instant yi affaire yaa ngi dox waaw gars ñu ngi jot seen affaire yi wax dëgg fa yàlla am na sax bàyyi tailleur yi jot de xam nag bu dee si na ci yow non am na tailleur yu Eh, yaral lan mooy sa gis-gis. ah man de ah. voilà Elhaj merci beaucoup de m'avoir posé <coughs> cette question concernant l'emploi des jeunes man li ma ci waxoon loolu laa ci waxaat. mooy la gis nga jël xaalis di ko jox jeune yomb na. li jafe mooy nga posé acte boo xamante ne. dina dina ko amal njëriñ ba ilaa yawmi diin acte boobu aussi pour nga mën ko poser il faut nit ki nga xam bëgg-bëgg bëgg-bëgg mooy lépp nit ki ci li bëgg ci loolu nga koy accompagner accompagnement bu njëkk mooy nga jàngal ko bu ci topp mooy nga former ko nga formé ko domaine bu mu bëgg moom nit saa yoo ko formé ci domaine bu mu bëgg loo ko jox ci alal même bu dee dafa tuuti dina la indi résultat yow tey ma jox la benn exemple yaa ngi yëngatu ci DJ yaa ngi yëngatu ci média tey ak matériel bu tuuti bi nga am def nga loo xamante ne ku amoon ay millions sax te bëggut métier bi wala métier bi doonul dominam du ko mën a def kon yow tey ñu la joxee ay million da dem bay ngay da yóbbu télé bi ba ñu koy comparé ci yeneen télé sa Sena musique bi nga yor ni ñuy déggee ñoom bobs ci publicité yi ci yeneen domaines yi noonu lañ lay dégg parce que affaire bi mbëggeel bi moo jiitu da nga ko bëgg ñuy jàppale la si ba bañ la ciy jàppale yow yaa ngi ci loolu mooy mbëggeel donc yow ku la jàppale rek ci moyen financier loolu moo la manqué da ngay dem nit kii foofu nga koy war a foofu nga nga ko war a jàngat d'abord nga xam ko xam nga am na ay formation yi ñuy def nga man dama contre formation yooyu parce que amul benn njëriñ oh, formation boo xamante ne une semaine la trois jours la euh, quinze jours la un mois la mënoo ci am xam-xam boo xamante ne buñ la joxee moyens financiers yi nga réussir ci projet biñ la formé mënul parce que gis nga gars yi lekkee kaayu xaalis la ñi indi projet yi yow lu la liñ lay formé sax gëmuñu ko ñow non man ñëw ma ci DER d' abord man ñi ñi ñi formé ni ñi laa wax mooy ñu bokk ci DER bokk ci beneen euh, kuréel li ñuy def laa wax yow mi ñu formé est ce que gëm nañ ko sax wala xaalis buñ ci war a luubal moo leen yittal la preuve année formation boo fi gis dañ ko bàkkale formation boo xamante ne ci une semaine la waroon a nekk

nga yaakaar ne yaa yaa gaynde gi. la kanet nga yor na. jox la kanet ne yow yaa rey gaynde gi fekk yow jël nañ ci yow vingt mille jël ci Baye May vingt mille jël ci Ousmane vingt mille jël ci Racine vingt mille xaalis boobu lañuy ñuy balaa ñuy génn ci formation boobu bu fekkoon cinquante millions la indi ñoom trente millions yi def nañ ko côté. passer passer vingt millions yi des. loolu moo am ci formation yooyu pare jox la diplôme boo xamante ne yow di nga dajale sa néeg vingt diplôme kawe <laughs> yow xool ban diplôme yow nga war a jël wala ci ban diplôme nga war a topp te xamoo parce que amoo amul benn diplôme boo xamante ne yow am nga ci compétence c'est grave ñu wëlbati ko ñëw jox la xaalis bi ñu la war a jox comme formé nañ la ah. ñu jox la cinq cent mille wala un million yow wóor na la ne amoo benn xam-xam ci diplôme yi nga rangale nii nga ne sama xaalis bi kat jeex na nga ne sama xaalis bi kat duma ko dugal ci formation yi parce que damay échoué je préfère ma jël sama xaalis xool ndax mën naa rallier Maroc wala mën naa dem Espagne foofu ngay gën a am assurance sax que yow formation bi ñu la defal mais ça c'est grave te loolu tey changé wuñ ko bu yeboo Macky Sall xam nga 300 milliards la wax mm-hmm. tuuti na bu yeboo nag dem indi 1000 milliards mm-hmm. ce sera la même chose loolu nag eh, eh, premier responsable état la mm-hmm. gis nga état dañoo war a bàyyi yenn caaxaan yi duñu demloo fenn nañu teg mbir yi niñ ko war a tegee fi ñu njëkk a jalgati mooy éducation gis nga éducation tant que ñun amuñu état boo xamante ne dafa am volonté politique bu dëgër mu teg ko duñu mën a dem fenn xoolal li ñu nar a indi musiba bi ñu nar indi ma teel ko avertir mooy ci recrutement enseigne enseignant yi trois cent trois mille enseignants xaw ma ñu war a recruter ci yan anam lañ leen recruter ak ban façon formation lañ leen nar a jox yóbbu leen ci àll bi dénk leen ay xale ñu ñëwaat xam nga xam nga ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi wax waxu waxu éducation bi ak niveau bi ni mu ni mu ni mu wàccee niveau enseignant yi ci boppam ni mu wàccee ñii bu ñu ñëwee ci lay gën a garaaw parce que yow imagine toi enseignant bi ñu waroon a former ci quatre ans bu njëkk nga def deux ans pratique def deux ans théorie fi ngay nekk ci centre de formation ngay ngay nekk foofu ngay lekk foofu ngay naan da ngay jàng jàng jàng di def pratique amul leçon boo xamante ne doo ko def leçon yëpp da nga koy def da koy def defaat ko def ko defaat ko saa yoo fa génne da ngay génne ak xam-xam formation boobu la ñu escamoté tey indi ko ba ci six mois quatre ans indi ko ci six mois six mois la ñuy former nit ñi léegi te am na ñoo xamante ne sax cinq mois la de parce que ñoom du ñu teel dem seen liste yi du teel a génn seen centre de formation yi du ñu teel a commencé cinq mois am na ñoo xamante ne dem nañu formation ba ñëwaat mosuñu def pratique dañoo dem rek fekk gars yi def nañu pratique ba pare ñoom théorie la ñuy def wala nga dem fekk gars yi def nañ théorie ba pare nga dem def pratique benn yoon yóbbu la benn yoon ci école nga def benn leçon benn leçon kese yóbbu la ci àll def la chargé d' école école boo xamante ne yow fekkoo fa kenn ñu yóbbu la foofu ban xam-xam nga am ba mën koo transmettre xale yooyu moo tax gis nga yu mel noonu nit ki day dem ba jéppi métier bi mm-hmm. ba jéppi métier bi parce que amul xam-xam bi taxoon bi taxoon mu am cawarte pour liggéey xam nga Baye Mbaye tey loo ko jox ci ñëw da ciy sawar rek parce que chaque jour day créer xam-xam bi moo tax mais koo xamante ne amul benn xam-xam nga dénk ko yow benn xale buñ la ko dénkoon tey sa jabar bu la dénkoon seen doom bi tey mu dem ngente de huit heures jusqu'à seize heures

mais da ngay dem ba jëppi métier bi inspecteur bi la war a former aussi pour nga gis ko c'est un problème yow fi la yóbbu nit kii sax pour mu dem fa problème la xam nga yooyu yëpp moo nekk ci réew mi te yooyu dafa war a jeex sinon dañuy naxante rek jël xaalis di ko yàq loolu dañ ko fi war a jëlee ñu tegu ci loo xamante ne lu solide la lu dëggu la lu mu lu mu ñu jaral ci temps même ñun buñ ko mënul fekkee mais ñi ko fekkee mun koo jëriñu mais c'est ça mais bu fekkee ñun mënuñu poser ay actes yoo xamante ne ñun amaana duñ ci jëriñoo mais mënuñu poser actes yooyu dañ ko duñu duñu dem bu fekkee ay actes yu ñuy poser yëpp pour ñun ñu mën mën coo jëriñoo ñun kese loolu moom du patriotisme patriotisme mooy koo xamante ne jaral na la yow ñu poser acte boo xamante ne leer na la la leer na la affaire bi buy ñor du la fi fekk mais mu jaral la ko réew mi jaral la ko soo su la fi fekkul mu fekk fi say doom wala mu fekk fi say sët tant amuñu culture boobu amuñu patriotisme boobu pare wuñu pour dem loolu daal laa amoon li ma si wax ci emploi des jeunes yi macha allah macha allah ah, vraiment sa wax am na solo trop xam naa dañuy jox kàddu kooku di bàyyi bàyyi tamit euh, lan mooy si gis-gis vraiment waaw loolu mooy yokk yokk kan mi xaraw moom am na yoo xam ne moom financement moom mooy am lekkal rek. mais Baye jotoo ci financement yi. gars man yii gars yi dañuy dañuy beralaat bi Sénégal bi. 150 000 250 000. waaw loolu du yebaate 150 000 loolu mooy lan lan na mën a faj. Ah, boo ci reeree ganaar mu jeex. <laughs> c'est-à-dire xam nga loolu suñu problème comme par exemple nee nañ tey tey léegi xaalis boobu yëpp avant ñu koy kii di ko dajale ku ne ñu lay jox 150 mais mënuñu ko woon a dajale xaalis bi yëpp def ko ubbi ko benn centre xale bu bëgg jàng métier léegi ñu jàngal la tey ngay ñëw. kon ba mu pare <laughs> c'est-à-dire xam nga la moom ñun lan lañ gëm lekk xaalis loolu mooy suñu problème gis nga comme ni ko saa waxee léegi loolu moo fi nekk gis nga fi ne yow tey bu fekkente ni jox nañ la xaalis bi bu fekkee xaalis bi bari na. yow koo war a jox juróomi téeméer ñaar téeméer nga koy proposé foo war a def dix jours cinq jours nga koy réglé parce que ñun xam nga lu Sénégalais lan mooy problème bu lekkee ba rek naan ba màndi amatul beneen xalaat loolu mooy suñu problème jamais nga fi organiser dara ñu ñëw ni la waaye yow yow lii de yaa ko bëgg a organiser nan nan lay demee duñ la laaj dañuy ñëw ni sa léegi après bu ci ginnaaw bi lañuy dégg ni ay million lañ koy jox ñu commencé lay saaga loolu mooy suñu problème jéemuñu léegi jéemuñu wut xam-xam xam nga lañ la ñu wut nu ñu amee xaalis te duñ ko liggéey léegi kooku yow bu ëgsee ci yow yow mi nga xam ne xam nga pour nga jaar seen kaw léegi comme kii ni mu ko waxee ci eh, njàngale mi noonu la boo gisee état bi di leen amul xaalis loolu la parce que yow da nga man man ma ñu jox ma ma yóbbu ma ci àll bi pour ma def fa la léegi man sama lekk gi ma doon lekk ak lekk ga fële bokkul may arrangé léegi yow bu weer wi dee man su ma ñëwee di wax lo lo pour pour yar ma yomb na di yow toppal fële fa nga ne xam nañ lañ fa nekkee benn xam-xamam boobu loolu est-ce que di nga moo tax ku ñu formé noonu la dañ la ci àll bi ñu muul la indi ci ville bi ñu muul la ba affecté ci àll bi rek lan lay mën a affecté parce que àll bi xamuñu nu xamuñu nu mu demee te àll bi man pour man boo doon yóbbu tey. borom xam-xam nga fa war a yóbbu parce que borom xam-xam bi moo mën a indiqué waa dëkk ba ba waa dëkk ba bëgg jàng xam lan mooy jàng mais boo yëkkatee bàyyi ba yóbbu ko comme ni nga ko def formation loo war a def quatre ans ngi jàngal la ko six mois léegi nga dem ci euh, nga dem ci benn village am am trois classes yoo xam ne yow doo nga yaa fa ne te yow amoo xam-xam boobu léegi waa dëkk boobu boo gisee woon dëkk bi yëpp bu nawet jotee ñu ne élèves yi yëpp dem leen bay loolu moo tax parce que duñ duñ gis njëriñu njàng bi parce que kooku fa indi du xam dara xam nga parce que am na yoo xam ne gis nga xaalis yi ñuy jël di ko basal basal naan projet projet du gars yi ñu ngi leen di financé xaaral ba déwén kenn du la ci benn résultat doo ko fi gis kii ni maa def lii parce que moom lii ah man de 150. Ah, ah, am na ñu commencé seen projet ñii ñu ngi tabax ñii ñu ngi bay ñii ñu ngi. xam loolu yomb na xam nga lu tax xam nga lan mooy problème. man fi ne tey buñ ma buñ ma financé woon jox ma trois cent mille xam nga nu may def su ma bëggee kii ne xam nga comme par man xam nga am naa ci mën na maa dem wut machine ñëw teg ni ñu xam ne kii man damay ñëw mais bu fekkee ne nii la yow da ngay daal dem jël sa toolu ciment rek miiri jël sa grillage ni poulailler laay def ginaare duñ mu sa màgg xam nga da nga kii mi ngi liggéey mais mën nañu def opération xaar mu ni ah korité la ginaar di jar xaaral ba ginaar korité ñëw ma jënd sama carte gis nga balaa korité gay ñëw léegi yow nga lekk xaalis parce que xaalis xam nga lan la pour nga mën a denc xaalis il faut fekk nga yow mais poche bu vide mënul denc xaalis boo gisee ñu lay jox cent cinquante mille ni la nga mën cee def dara dafa fekk yow yaa ngi deux cent mille trois cent mille sa poche mais bu fekkente ne yow cinq cent trois cent cinquante mille dong lañ la jox nga xëy war a yàlla boo am doom mbaa sa yaay nekk sa wet mbaa sa papa yenn saa yi kenn di la fe ne dafa feebar léegi yow boo projet nan lay doxee cent cinquante mille du ngeen ko fajoo toog léegi bu ko defee ñu naan non non ñoo ngi leen di financé xaalis bu jox ñu lekk ko te joxe woo dara yàq der la parce que ñoom fu ñu la joxee cent cinquante ne la wóor ni waroon ngaa am trois cent mille mbaa quatre cent mille. mais Baye cent cinquante mille mën na machine. machine la machine fekk nga mën ñëw mais mooy li ma la gis nga boo dee financé da ngay financé comme ni la ko yore waxee léegi da ngay fekk koo xam ne am na métier mu bëgg ko kooku pousse mu pousse rek lay def mi ngi mel ni oto boo xam ni comme par exemple amul démarreur mais yem nay client ba pare xam nga da ngay pousse tuuti rek mu tàkk mais comme par exemple financement yi ñuy def bu dee borom métier lañ ko jox kooku bu fekkee gëm na boppam day jàll parce que fii ne comme par exemple ni commerçant yi man mën naa la limal ñu bari ñoo xam ne ñii trente mille lañ départ ñii quinze mille ñoo ngi di magasin xam nga mais comme par exemple li kii wax li yoro wax dafa am solo gis nga formation mooy lépp mooy base gis nga formation buñ la ko defee même buñ la joxul xaalis mën nga demal sa bopp mais boo amul formation lañ la jox cinquante milliards euh, une semaine mu jeex affaire bi foofu la coow li loolu la ñoom état li xool ni mu gën a yomb rek loolu dégg ñu ne escalaire baaxul escalaire moom baaxul teel rek te yëpp li ñuy def formation boo xam formation ñu ne éclairé ñu wax ñu ni loo loo dégg ñu ne éclairé éclairé fan la baaxee du dem affaire doo ko yàkkamti doo ko yàkkamti parce que comme par exemple da nga yore sa kër nga jëmbat fa say garab mais xamoo fu muy yow dina la fekkam de mais xam nga ne moom bés bu kiyee bés bu kiyee bés da lay jural njëriñ mais xoolal ñun suñu gendarme bi peinture dong lañ fa nekk amul bâtiment yoo xam depuis suñuy maam ay peinture hôpital peinture bi daal moom. mais léegi bàyyi état bi même mu deful gendarmerie bi mais gendarmerie ñoom ñu ngi lekk xaalis ñoom pour que ñu defal seen boobu. ñoom xam nga gendarmerie lan moo tax ñuy lekk xaalis. ah non dafa waaw mais mais ñoom léegi ñoom ñoom ñu ngi lekk xaalis. waaw ñu ngi téye fii kat yi 3000 3000 di def bi c' est vrai dañuy yóbbu état mais ñoom léegi dañuy defal seen bopp ñaan lay xaalis. xam nga lu tax duñ ko def. xam nga luñ ko def fi ne boo toogoon tey ak gendarmerie bañ jàmbat la. li leen état bi yore danga naan c' est pas possible. gis nga comme par exemple xam nga luñ problème bi ñoom buñ la fekk affecté ci ay dëkk yu sori yi xam nga lu lay wax débrouiller yaa ngi lépp parce que xam nañ ni ngay def xam nañ ni yaa ngi du dugal ay bagage xam nga gars yi bu bu buñ la waxoon nii yàlla xam nga ni fii kay ñoom macha allah mais duñ ko duñ ko def. parce que comme par exemple kuñ fi affecté bu kuñ ko fi affecté bu fi nekkoon mu daal di góorgóorlu ba tabax benn bâtiment defar ba mu rafet. léegi bu moromam ki koy remplacer bu ñëwee gis lii dana ah man de vraiment war na maa góorgóorlu diw moo fi def lii il faut mu def fa mais comme par exemple da dem xoolal nan meloon machine yi ñu yoroon moom la ñu yor la ñu boo fa duggee da ngay ruus amuñu matériel bu doy dañ lépp dañ koy débrouiller xam nga moo tax il faut ñu xool xaalis bi ñuy dugal ñu xool fi ñu koy def moo gën gis nga lii ay financement financement tardement dong la barke rasulullah tànn maa kese la parce que lii ñu ubbiloon lu ko fi benn affaire jël xaalis bi yëpp dajale ko defal ñu fi benn affaire sax moo gën ku ne ñu lay jox dara ku ne ñu lay jox ay cent mille mille non loolu man man non non man ma voilà kon donc de je pense que <laughs> moom rasul jam ane kalap on nani ko baye hali ko euh ci kumi dal baye yande mako c'est-à-dire xaliss mo be ndokir 150 200 Euh, ko yo e e oui euh, belle question mais Rendi, je vais un peu retourner en arrière cest à dire euh, waɗde décortiquer un peu le message du président tu sais le message de la nation que le président a fait c'est un message d'apaisement tout simplement c'est un message politique il aussi quoi. Dans trois ans, je pense qu'on est en 2021. D'ici trois ans, le président ne peut pas faire ce qu'il a dit. là, nous avons wax dëgg. comprendre président mais devant mon 97 sept ans vos goûts, actuellement on est en 2021, trois ans à connaissez? et même ce qui m'étonne ça ce qui me fait aussi mal mais il a repoussé même les élections locales jusqu'à janvier 2022. waaw mais kan moo la ne mairie fu ñu nekk mooy élection mairie repoussé na ko ba janvier deux mille vingt deux kan moo la ne gox